xelkom ji woote naay ote yaa ngi dugg leen dem ku fa dem tey sëriñ saaliw fa ci aajo bay saal bay saal mooy borom yërmande borom jàppandal xabaan borom lagan borom ngeejaan borom tey baak umul xuraa Baye Sall mooy borom yërmande. jërë ngeen jëf mbokku jullit yi mbokku taalib yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bu ngeen déggee bayit xaside yooyu ngeen xam ne ndigal bàyyi ko te na fa mu baaxoo bàyyi ko ca kër Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha wàcc ci kër sëriñ Cheikh Mbacke ibnu Serigne Saliou ñëw nag ci jàmbaare lislaam ji nga xam ne. ku gis muy dox do laacte fan la jëm ci liggéeyal cheikh Ahmad Bamba khadim Rasuul rek ci lay xëy ci lay gont koko may kan soxna mam Issa Mbàkke njitul fédération en lu Café muy liggéey bi nga xamne soxna ci baxono ko andak do ngay terbe yi nga xamne ño aju ci kër Serigne murtala Mbàkke ibnu Serigne saliw muy bàddali tooli xel kom sa bu liggéey bi tolé fi ñu jël ci daara jo xamne dañ ko féetale soxna ci mu àndal ko mboolem fédération Ahlu Café ak mboolem xarit yeeg soppe yi ak talibi yi dem fa bàddali ji tool ya mbokk yi liggéey boobu mo moo malat malaat moo soxna ci toogaat jotaay bu tedd bi mu toge and ak dongee soppee xarit yi ak mboolem fédération ahlu café fas yéene ay kaddu wo mboolem ñu ko andal àndal ñu baaxoo bokkal liggéey bi ñom ñëpp ngir fas yéene dem xel kom Cheikh Mouhamadul murtada di chatum Serigne Saliou Mbacké ndigal limu daan joxe mu jëm ci tooli xel kom daru tanjil ndigal loola lay ñu and ko soxna mam isa Mbacké ñun mboolem dongay terbe yi nga xamanteni ni ñoo nekkoon Xelkom Daaru Tansil ndigal loolu nga xam ne ni sëñ Mourtada at mu jot mu feddali ko ñu ànd ko soxna si soxna si mu ngi koy feddaliwaat ci mboolem ñi nga xamante ne nii ñoo ànd ak moom ci liggéey boobu di waa ahlu café kon ñu ngi leen di woo incha allahu rabbi ci liggéey boobu na sëriñ Saliou Mbacké bëgge woon képp ku teew Xelkom man faa jariñu donte loo fa def lu mu néew néew rek nga mën caa jariñu loola la soxna si bëggalaat mbooleem ku mu woo ngir fas yéene ànd ak yow ci tool yooyu kon ñu ngi koy feddaliwaat ci di ko waat lépp lu ci waay man nga def ko ci incha allahu rabbi la vingt 22 moom lay fas yéene départ fii ñun nag incha allahu rabbi la 23 danañ ko fa fekk bu soobee yàlla kon ñuy fas yéene ànd ak moom liggéey boobu ñun mboolem dongay tër bi yi nga xam ne ni ñoo nekkoon ci xelkom fas yéene ànd ak soxna si ci liggéey boobu nañ ko daa ànd ak moom saa su nekk. liggéeyam xelkom nag kenn ku ne xam na ni mbir la moo xam ne at mu ne rek soxna si jot ci ndigal ci Cheikh Mourtala Mbacke moom Serigne Saliou. ndigal lolé nak sëriñ bi sa su nek mo di ko yeesal ndax ab pastifam ak baxam daw rek sëriñ murtala dani ko tool day mbacké daga bax waye so yabaloon jabot gi rek ñum mu mat waye fasiyene yéene sëriñ Touba bi kenn dula ci man kenn dula ci raw lool rek mo la taxajuk waye na la wuri nak tol bi yaag njabotuk sëñ saliw gi rek ka ci loolu nak moy mom pastifam sëriñ bi gëreum ko lool sant ko lool ci wuluko te ba kon nag daara jooju nga xam ne mooy daaru tansil di daara ju tedd joojee nga xam ni Serigne Saliou fonk woon na ko lool ba waxoon ca lam ca waxoon foofee nag la ñuy woote liggéey incha allah rabbi le 22 jàpp le 23 soxna ma Issa Mbacke ahlu kafe nag di ci ñëpp xel kom nag la ma daan wax rek sëñ Saliou da doon wax ni képp ku fa ànd ak say taalibe wàccoo nga ak ñoom adduna kalaaxira am na sax ay taalibe yu fa mu sa ñëw ànd ak seenu kilifa sëñ Saliou ni leen damaa bëgg ngeen fanaan. ñu daan ni ko mbàkke ñu de xanaa tëb ji ci itte sëñ Saliou ni leen ah kay itte yi bari na waaye li tax ma bëgg ngeen fanaan damaa xam ne xel kom day képp ko fa fanaan benn guddi tiyaaba ja mi ngi tolloog tiyaabay juróom-ñaar fukki at yoo xam ni bëccëg gi yëpp da koy julli da nga koy woor bëccëg yëpp da nga koy woor guddi gi yëpp nga di ko julli dinaa fi la daal ni ko loolu nag moo tolloog tiyaabay ko fanaan génn guddi xel kom sëñ Modou Aminta faal mu baax ma yàlla na sunu borom dolli leeram àggoon na ci di wax ni murit bu musta dem xel koom day gis la sax wóoru soxna maa isa mbàkke nag jot ndigal ci xel kom ma koy faral di wax ne nag xel koom yow laa njëkk a gis ko fa amub cër ñu la ci daara joojee nga xam ni sëñ Saliou moo daa waxal ba boppam ni tan tanzil day su ma ko nammee sax ku cibb ci suuf sa jox ma ma teg ke saay tànk jël ndax daay def foofa su ma fa duggee la may yëg foofu rek laa koy yëgee ba noppi lu ma mën a dal man sëñ Saliou su ma fa duggee mu deñ kon daara joojee nga xam ne nag fa la doomi Sëñ Tuubaa joojee mujj muy daaru tanzil ñu bàjjale la ko soxna maa Bakke ahlu kafe mu doon fa jàmbaar joo xam ne su dikkee njàqare jeex fa su dikkee tumranke jeex fa xiif jeex fa ma mar jeex fa xéewal gu yaatu la fay indi ay teraanga yaatu yoo xam ni day des ba dañ koy bàyyee sax dongoy tarbi yi nga xam ne ñoo fa nekk kon nag ñoo ngi ci woo ñëpp ñi nga xam dañ cee baaxoo ànd ak soxna si góor jigéen mag ak ndaw soxna si daal lantinoor la du téye diw képp koo xam ne bëgg nga sa addi agsi ci sëriñ bi su jaaree ci moom dana agsi xelkom agsi ci sëriñ bi moom laa gis koo xam ne su dikkee koom day jëf ba noppi lam li sa lépp mu daal di jomb naa koo delloowaat takk jox ko dongo yi kon nag ñoo ngi góor di woo jigéen di ci woo mag di ci ndaw sëñ Saliou nag ne woon na xelkom li may daanale samay kàddu am na ñoo xam ne saa rek lañ fay def fas fi seen mbiri adduna ak seen i mbiri àllaaxira te noonu la ko saa borom di defee kon nag xelkom a ngi noonu départ bi fi la ci soxna ma isa Mbàkke euh, ahlu kafe ñuy téré jé daru tanzil ci kër goge nga xamni ne sëñ fonkon nako lol ko fa teew yalla sunu borom fajj say aajo ak njabootam gépp wasalli ala salihi wa al muslimu asadiqu sit salatan tuslaa ñu ngi leen di nuyu ci turu soxna maam isa mbacke bintu serigne Modou Fati khari serigne Modou Fati khari ibnu Cheikh Mazamba mu jot ndigal lu bàyyikoo ci serigne Murtada ibnu Cheikh salih yalla nako fi suñu borom yagal lol ak ay magam yep ak ñi mbokkal serigne salih ndigal li nak mu nango ko ci loxoy njabotuk Cheikh Mazamba ndax Cheikh Mazamba moy buntam ci serigne Touba kon ci ndigalal serigne Mamor mbake, mi fi nekkal Cheikh Mazamba ak serigne Fàllu Mbakke mi nga xam ne moo fi nekk tey jëmmi sëriñ moo du Faty xari di magam di ab sëriñam di ab soppeem mi ngi nangu ndigal loolu ci seen tur di ci jiital soññ boppam waaye itam soññ mbooleem waa fédération ahlu café yépp ak mbooleem bangaas yi nga xam ne ñoo aju ci fédération ahlu café yépp ak mbooleem ñi nga xam ne daa am ak ñoom kóllëre rek ànd di liggéeyal sëriñ Touba te ñooñu kenn mënu leen benn jotaay waaye bu ñu ko waxee noonu ñëpp tàbbi ci du ñàkk nag ñun ci tudd di rafet lu tam ànd gi mu ànd liggéey bi ak bokki boppam ndax rakki boppam di soxna Ndey Seyni Mbàkke mi ngi nii ak soxna maam Jaara Mbàkke ak ñu baaxu àndal ñëpp sunu yaay soxna Faati Mbeng ak mbooleem soppey soxna maam Isa yëpp ñu ngi nii teew mboolem jëwri ñi nga xam ne tam ñoo ngànk liggéey bi di jàppale soxna si ñëpp a ngi teew ba ci gone café gi soxna si nag nee na li muy jiital mooy Ba mi nga xam ne moo ko may ab cër ci liggéeyub sëriñ saaliw bii te loolu dara waralu ko lu may bayit wi sëriñ tubaa waxoon ci yonent bi te man koo gis ci Cheikh Mamadou Mourtada mi ñu ko tudde ba mu wàcc ci moom loola rek a tax mu def lii muy lakka matabiya bi sugrin warida yaa waashi an washatali bi Mourtada yaatal googee rek mooy lii waaye bir na ko sëriñ bi am na mbooloo mën a def liggéey bi kon nag sëriñ yi yéen ñi fi teewal sëriñ Murtada soxna si nee na ngeen santal ko baax te gërëmal ko ko ndax liggéeyu xelkom bii ku la ci boole da laa bëgg soxna si nag nee na mi ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn xarit yi wëllëre yi soppe yi am di jàmm yi képp koo xam ne liggéey bi soxna maam Isa di liggéey sëriñ Touba sa xol sedd na ci nga ci ànd ak moom mi ngi lay woo bis bi nag talaata lan war a départ ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre ci kër sëriñ tuuba gii ci gaaraasu dakaar fi ñu baaxoo déparé soxna si nag daa bëgg talaata ji bu ñu xëyee ñépp ñëw su ko defee nu teel a départ mën a àgg ci ab jant noonu la ko bëggee ginnaaw bi ko sëriñ bi jagleelee liggéey bi nag. dafa am ay jambar yu muy te jambar, dan koy soñu ne liggéey bi manan nako defal bopam te du ci tudd kenn waye nag ginaaw yalla da ko ak mbolo mi lay soñu mbolo mi waru garam la mu diko def motax ren ji bis bi dañ ko ndayele daayira mam jaara ba nek sardegna sa sari ci njital soxna ndela silla ak soxna magat ñang ak soxna nday koddu juuf waaye tam mi ngi koy yëgal soxna maam jaara mbay ak waa nooru ñoom lañ tuddee woon bis bi daaw ndeyale leen ko ñoom itam ñu di jàmbaar lool ñu ngi leen ciy woowaat ren nee na tam mi ngi koy yëgal jàmbaar yi Serigne tubaa di jàmbaar yi ma Mazamba di maître ma dikki ñaa ndax lépp lu soxna si nekk rek mu nekk ci ak moom kon mi ngi koy yëgal di ko yëgal ajaratu faamaloo ak soxna Fat nduur ak mbooleem fédération bi nga xam ne moo lëkkale li dalee Dakar jëm Cees ak Mbuur ba àgg Luga ak Njaxiraat ak li ci aju lépp soxna si nee na mi ngi leen koy yëgal di leen ci soññ di ko yëgal tam ajaratu mbay Ndiaye ak mbooleem soppee Serigne tubaay yëpp ndax ñoom itam waxtu ne dañuy ànd ak moom ci liggéey bi di ko njëgal itam Serigne Makhtar Ndiaye ak soxna Yanday fay yaay Mbacco moo leen fi teewal nii bàyyi ko Mbàkke ak mbooleem kuréelu soppey maam Cheikh Ibrahima Fall di ko yëgal Baye Abdou Sall ak Serigne Sang Diagne ak mbooleem waa Matlabul Fawzayni set setal di ko yëgal xaritam di doomi ndeyam di soxna May Bousso ak mbooleem waa asaabul janna di ko yëgal képp koo xam ne rek séq naa yow liggéeyu sëñ njabootu sëñ Tuubaa gépp mi ngi leen ko yëgal ak bokk yépp di ko yëgal itam mbokkum taalibe mu baax moo xam ne bis bi dañ ciy soxla ay oto te mbalem tuubaak ak lépp daf ñuy jàppale ci oto yi muy sëriñ Mañas Lo léegi la ma ko sëriñ Aliou di fàttali muy ko baax moom itam at mu ne ak mbooleem ñi nga xam ne dañuy abal soxna si ay oto ndax mbooloo mi dem day bari su ko defee kon képp koo xam ne yor na oto mën a sarse am ngooñ wala auto bo xamne ne yobbu ay nit soxna ci mi ngi lay talal loxo wala ay bagage nga jappale ko ci te jëmmi Serigne saliw tax ak jëmmi Cheikh mazamba loolu soxna ci neen mi ngi koy fatali ñep ni ñu ko waxe nak départ bi talata lay doon le 22 novembre. loolu tam bo gisee soxna ci diko def jiitu ji lim bëgg rek moy wane né ndigal li sàgganewu wuko te ñor na ko sëkk ñu ñaan suñu borom mi nga xamné ne mëna dimbali ab jamm nanu ko daan defé ci at yi wessu yalla ñu suñu borom teub katan ci barkeb Serigne saliw bañ defé ko nona ndax at yi wessu yépp kat do nga yaangi ni tok té mat nañ séré mom mi ngi ni rek kèn dootu ko jeex soxna si day wax ne dem gi muy dem xel kom day serigne bi sant ko liggéey bi dafa fasiyé né lu fay waru garam mu def ko ci digënté lu ñuy lekk tam dagan ak lu ñuy naan tam dagan xam ngeen xel gom ju ñëk ja nit ki daan rek waye nak ñun dañ ci tabalalé ak cant te li ñuy defal suñu borom ak cant ci gën ihmalu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya sakur nee na moom nag day dem ci ndigalal bàddali tool ya waaye nag dafa fasaale ci ab xolam te bëgg koo feeñal ci ay jëfam muy santaali Serigne Saliou ndax Serigne Saliou ñëpp a ko war a sant ndax jaam bu ne fa nga toog yëg nga yërmaande Serigne Saliou ak dimbalal Serigne Saliou ci sa biir ak sa njaboot moo ne woon joxleen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba ca mag ña su ma ko munut ma barkeeloo ko waaye ba nu jëlee ndaw ña jox ko ko moom Serigne Saliou def na ci ñoom la Serigne Touba defoon ca mag ña te mooy mbaax mooy diine mooy ngor mooy nangoo liggéey kon nag bu ñu amee tawféexu ñun waa fédération ahlu café ñu am jëwriñ joo xam ne comme mën a doon ci njabootu Serigne Touba xemmem nga di lëkkaloog moom ci liggéeyi Serigne Touba yi ba ci njabootu Serigne Saliou ci tool bi nga xam ne mosuma dégg jigéen ju am cër bi fi soxna sa am waaye munta ñàkk ndax innal muslimina wal muslimat ila aqinil aaya fu yàlla tudd góor gu baax tudd na fa jigéen ju baax kon nag moom loolu moo tax mu am cër bii yàlla na yàgg ak moom te yàgg ku cee gunge ci barkeb Serigne Touba kon ñu ngi woon ñëpp bàyyiwuñ kenn di woo kilifa yi di wo borom auto yi di wo presse bi di wo kep ko xamni sekk séq nañ ayu liggéey Serigne Touba di ñaan na ku fa tew Serigne Saliou fay say aajo ñu ngi ñaan ku fa tew Serigne Saliou fay say aajo layu jang amatul ci yi dara setup jaara mo bari dara waju da topi kon seexal te nga topi tay serigne bi seexal waju yene won dem badar te mo dem xel kom te bar asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki kon jere ngeen jëf deg ngeen kaddu yaangi nonu lolu moy wote bi le 22 ne ñëpp waaj daje fii ci kër Serigne Touba gi ci Darou Manaan ànd ak soxna maam Issa Mbakke dem daare Daaru Tanzil ngir fas yéene liggéeyal Serigne Touba Cheikh Saliou Mbakke jaare ko ci kër Serigne Mourtada Mbakke ibnu Serigne Saliou mbokki kon ndigal laa ngi noonu te ndigal nag ku ko jëfe jariñu